سدد لساني نذب جناني سافي اماني وتي noonu nuyu suñ bokki julli fi bokk تيو ييب دي جيل nuyoo بي nag di جار سن جوري شيخ Cheikh Moussa Falilou waaye nu jëmee ko ciun jëwriñ yi nga xam moy mooy sëñ Falilou Fall ko ñaanal sa borom yalla guddal aw fanam lool te doolu wér gi nak waaye nuy jot li kàddu rek ci ndigalal sëriñ bi di wax alhamdulillahi rabbil alamin nun day wax dëgg yàlla sant nañ yàlla baax sant Cheikh Mamadou Falil Fall baax a baax sëriñ Abdoulaye Mbacke mu baax ma day daa waxoon ne ngir boo sooyut war ngaa sant yàlla baax a baax boo sëyul rek bu baax nun waa kër Cheikh Modou Fadil Fall nag wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax a baax ndax nun day sëyul de li war a loolu nag mooy baatu dégg ndigal rek te nangu ko barki démb rek dafa am ku bàyyi ko Ndakaaru di ma laaj naan waa Baye Ibra yow ñaari Baye Fall moom lu ko waral ma ne ko ah, làmmiñu ku baax day bu jottalee kàddu saa da koy nangu bàyyi ku ci ngelaw li def ko ci ndox mi nit ñi di ko naan di ko noyyi waaye suñu wajur bu baaxoo Cheikh Modou Fallou Fall dafa am jamono yoo xam ne yii li ñu naan addiya kenn du ko waaj desu ko diisoo ndax loo ci mën def doo dem ndax koo tàgg bu yebbi la waaye dafa amul loolu lenn rek lu may moom mooy Sëriñ Fallilu Cheikh Moustapha soxna Ndey ak yeneen ak yeneen yëpp jébal ko sëñ Fallu Mbàkke booba nag Moustapha ak Fallilu dañuy ñaar képp boo xam ne dañoo toll ci jàng waaye ñu nekk nag kër soxna maam say suñ xëyee ñoom ñaar nag dem ànd ji nuyoo sëñ Fallu Bakke mu ci gën a bu xëyee daan ànd sama ñaari bay Faal ya kon loolu mooy sama sababu ñaari Baay Faal ndax waxi ku baax day day reyaat sama ñaari Baay fal mooy Falilu ak Moustapha déggoon naa léegi Abdoulaye Ndiaye di wax booloo ànd baax loolu suñ njëriñ baax ci Cheikh Falil Fall mii toog dafa amoon benn complexe boo xam ne bii bi dafa baxa waaye Moustapha am complexe boo xam ne dafa bulat Moustapha di xool sëñ Fall ba mu yàgg ma ne ko teen ko fat boole benn yoon loolu de moo indi baatu booloo baax ñoom ñaar ñii bula bi ak baxa bi bu ñu booloo ànd baax yaakaar naa jëriñ jaa ngi toog lu ma ci wax lu loolu nag boobu mu nga tax baaram loolu amul noonu kon ñoo ngi sant yàlla baax te ñaan sa borom yàlla dolli kattan yi dolli sañu baax a baax ten delloo góorgóorlu nag ten xool seen bopp wala xool bis baax bi mu ne kër gi ngeen nekk bari na kër yoo xam doo fekk mbooloo mu toll nii bari na kër yoo xam ne doo fekk liggéey bu mel nii loolu nag li nu ko may mooy baatum ndigal rek moo nu ko may kon nañ jéem a góorgóorlu te jàpp ji ndigal yi te xam ne ndigal yi ci la lépp nag sëriñ bi nag waxoon na lu leer de yoon moom jëf li jëf yaa ko moom sa bopp sëriñ bi de waxoon na ne boo demee ca banque ba yóbbu fa sa xaalis di ko déposé borom banque ba du la gërëm de kon bari loo xam ne ni mi fi sëriñ bi loolu mat na leeral bëgg nit ñi gën ko mën a xam xam ne li tax nu mën fi dey baatum ndigal bii nu doxee tudd jëf jël loo am indi loolu rekk tax nu fi kon mu salti la naa la bàyyi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu